mbokk yi seetaan Sénégal 4 TV maa ngi man mi soxna Gédd Diop maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér ak yokkute. jërëjëf maman defe naa gi ci wàllu seet ci biir réew mi ci bitim réew jërëjëf. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaat. ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 Sénégal 4 TV forever. waaw maa ngi ziar bu baax nag ci sama xalaat ci film bi tuuti rek man xam naa ne côté bi may xalaate dana wute ak yéen fi ni xalaate pour tuuti rek ci film bi man dama xaw a jaaxle tey ci film bi nga xam ne épisode bi ñu seetaan tey jaaxle naa ci bu baax film bi xaw na jaxasoo ci sama xel pour man Dior Diop mii joor ci boppam sama xalaat bu gàtt euh, mooy kii juru ko quoi mooy femme bi nga xam ne moom moo dee moom lañ wax dafa dee juru ko ba tey man action bi nga xam ne joor moo koy def actuellement pour man ku jigéen kooku ñu wax dafa faatu pour man ba tey mooy xalaat fi mu jaar ak ni def ba amoon joor moom ndax am na benn film bu xam ne mas na daw bu yàgg yéen a ngi koy fàttaliku booba joor ak yaayam ak beneen femme yi ngi doon wax am na diggante boo xam ne wax ja eggul wax nañ fa leneen loo xam ne dañ ñu ko bàyyiloo ba pare yaayu joor mën na expliquer di wax di wax joor di ko nettali benn femme boo xam ne moom dafa rafetoon ay jamono te ba tey lam ko doon netti daanaka am lu bëri eggul est-ce que yaakaar ngeen ne joor femme bi moo ko jur ba tey est-ce que nekkul di déliré ci biir feebar boobu ngeen di wax faatu na est-ce nekkul di déliré ci affaire boobu tax di fa di xalaat li nga xam ne moo nekkoon moom jamono jooju est-ce femme bi dee na ba tey loolu laay wax man ci film bi quoi. waaw euh, xaale gi ñu lay siyaaraat bu baax di la jox sa waay waaw comme li nga wax noonu joom euh, moom mère bi gaañu mooy yaayam dëgg moom. yaa mayaamam mooy yaayam dëgg moom naa passé dem na ay compétitions yoo xam ni deme nañ woon ñoo xam ni même bu doon woon yaayam bu noonu ñuy waxtaanee dina ko xamal ni ko du ma sa yaay wala naa nga te gis njëkko tamit mu doon xëccoo gaam mi ni ko gaam mi ba gaam mi bañ moom loolu moom mooy yaayam moom amul beneen joom mu yaakaar mais bi mooy yaayam man loolu laa jël jàngat ci li nga wax waaw naa loolu nga wax noonu tamit dëgg la mais ñoom amba seen yëf yi dafa jaxasoo topp topp il faut ñu gindi Sénégalais il faut def benn kii pour géndee nit ñi quoi ndax man mënuma gëm tamit ni maay dégg ni koy wax di ko laam-laamee ne ni is gàmmi juut yaama te loolu tamit dal man pour man wota mën a nekk waaw man pour man safoo bi laa pour man moo ju yaama waaw waajoo di defat diil at di liggéeyal yi ci naa jot ci wàllu diila yooyu yaakaar naa moo ju yaama man daa sama xalaat bu gàtt loolu laa xalaat waaw waa asalaamaaleykum groupe maa ak joor maa ngi nuyu waaw yow li nga wax ah, suma doom yow li nga wax dëgg la parce que police dina ci am yoon suñ jàpp suñ gisutee xale bi te gis nga ne joor bi ñoo photo wu dañ ko oomu ñoo photo wu dinañ ko xàmmee ne kii ci photo bi lañ ko gisee xam ne kii mooy yóbbu xale bi buñ yóbboo photo bi police dinañ ko jàpp waaye nag ragal naa buñ ko jàppee xam ne naa jub dina am ndam waaye tam ragal naa ne problème ci la moo parce que ñoom bi dëj bi amee ba léegi gisuma fu Pape Birahim jéem a dem police wala mu jéem a investigate ci dara gisuma kenn ku investigate même feebari joor bi tax na ba maa joor tarul sax pour def investigation bi si euh, problème yi accident bi xam naa ne ci ñu jàppee joor ba yóbbu ko police nag ragal naa ne ci la ñoo defee investigation boobu noonu ba xam lan moo waral accident bi asalaamaaleykum ma ñëwaat beneen yoon gannaaw bu ma leen nuyoo démb seetaan na maajoor ak joor ci guddi bala ma tëdda ci youtube bi waaye nag xol bu naxari rek laa am aw ma lu neex parce que joor ba tey mu ngi feebar ba pare jël na doomi jàmbur mu ngi jël doomi jàmbur ndeysaan a ah, joor nag war nañ koo faj mu wér ndax joor moom xam naa ne su wéree moom moom dinañ xam ne doom dina neex ndeyam su yàlla isi waatee mémoire bi parce que dafa luus mémoire bi fi mu nekk nii waaye su ko yàlla indi waatee mémoire bi su wéree suñ ko fajee ba mu wér daal xam naa ne joor moom ah naar joob mi di pare pour rey lu ko moom de mu ngi taxaw fi mu nekk nii pour ñu rey joor waaye ah la doy waar de dina doy waar trop i góob ma ne loolu xanaa dina war a am ndax naar yow ku la defut waxu la. ka bugg a xëy suba rey yaay ji rey doom ji te yow jotewuloo ak ñooñu dara est ce que naar du jéem rey sax su kii génnee kër su maa joor génnee kër gi ndax naar du jéem a rey papaam parce que moom mu ngi naan maa ngi dem te ñu su ma ñëwee ba naar du jéem rey ah du jéem a rey euh, Birahim Diop càmmiñam ndax naar moom fi mu nekk moom dafa dafa dafa dafa sañ na lu nekk daal fi nekk ni sañ na lu nekk ndax alali àddina waaye nag ragal naa mu ñàkk alal gi yëpp yëpp yëpp yàlla moom du seetaan waaw. salaamaaleykum képp sama waa kër bëgg leen nuyu bi naa leen yéen moom dina bari problème torop da su fekkoon ni coor même waar boppam la yor waa El Hadj mais joor. même waaru yaayam moom la utilise instant bi kon si moom moom mooy yaayam loolu noonu la demee moo tax instant bi bi mu déggee ñu ne ko bébé bi joor joor gisoo bi mu weetee dañu joor joor sama doom la moo tax xam naa muy considéré ni joor moomu mooy doomam jim nekkaloon moo tax mu dem jël ko mais foofu noonu moom mu dugg tamit dinaa ci ànd ak yow moom loolu buñ ko topp toowee ba kii damay jàpp ne seexu yaayam bi am na nu muy demee foofu lay dëkk waaw ndax tamit mbokk daal dina feeñ foofu man daal li ma xalaat mooy benn seexu yaayam bi buy feeñ noonu foofu lay dëkk daal man loolu lay xalaat ci sama xel mu gàtt waaw noonu lay demee daal instant bi tamit euh, ñoom tonton Liba sonn nañ torop wër nañ ba sonn bi moom mooy loolu affaire bu na naqaree li jën ci torop xam naa buñ ko jàppee foofu moom ah, ba ji ko dóor damay jàpp ne seexu yaayam bi foofu noonu foofu lay génnee pour euh, wax moom wa ilaa moom mooy loolu ndax tamit mbokk moom fu mu feeñee moom deret bi moo koy wone est que mooy loolu noonu lay demee xam na sax sama waa groupement Dior ak Dior maa ngi ñëpp di ziar ñëpp aussi di rafetlu kàddu yi fi jot a jóg waa comme ni ko mbokk mi mujj ci groupe bi waxee ni mu waxee ne maanaam comme ça foofu noonu man joor foofu noonu mu dugg di jël xale bi euh, soxna soosu noonu jur xale bi bi duggee si néeg bi ñooy naan ko ana sa wujju bi mu naan kan ah mais noonu rek kii la sol man bala maa gëm ne du man kooku damaa yaakaar ne kooku la man loolu laay ragal ah sama xel de loolu la ma jox dama yaakaar ne da comme ni ko kii waxee ne nekkul ne mën na feeñee foofu mais man kooku laa koy teg mën na nekk nag de mais sama xalaat rek laa wane laa joxe. salaam salaam waa groupe bi maa leen ziar baax yéen ñu ma fekk si buntu yëpp ziar naa leen waa maa jooye jox di leen ziar bu baax baax baax baax man moom jox maa ko doon seetaan léegi nii sax si YouTube bi mais c'est un peu triste quoi wallaay instant yi moom théâtre bi moom gën na gën na triste daal. waaw salaamaaleykum waa Gouma Dior maa ngi leen di bëggewaat di leen jox seen wàccuwaay di siyaare Assane bu baax a baax di ko wax ko kontaan nan toog ci gan yi xam nga ni siifu bi dañoo gën a leen di seetaan bi dañu gën a leen di participer yooyu moo tax ñi mais li gars am nañ solo lool lool lool lool nii leen di siyaar di tey jéeglu waaw waaw waaw waaw faama niñ ko waxee mais seetaan naa ko ni ñu ko seetaan nañ ko ba pare ñun seetaan nañ ko ba pare day daa ay 10 minutes xaw minutes mais nag il faut nga bàyyi ba gars yi seetaan ko nga doo ko nit nga bu ko defee mu doon surprise quoi mais affaire yi yéeme na lool lool lool lool lool lool lool na waar daal doyet na waar waaw épisode yi doy na waar lool lool lool ñëpp daal waaw faama fàttewu ma temps yi moom moom mooy loolu yaa ma gën a xam waaye gis nga noonu sax la demee noonu yaa ma gën a xam ndax ma kii joor sac bu mu yore woon la duggal xale bi waaw bu nit ñi génnee nit ñi demee photo moom la dugg si néeg bi Ah, ah, jël kii bi nu mu tudd xale bi dugg si bisaab bi xanaa seetaanagoo ko walla am na après ñooy ñu porte leen plainte yaama ak yaayam ak waa kër gi seen waa kër yëpp daal sax léegi dafa tiit torop sax waaw boobu man koy joor lu may ragal rek ma am problème na xale bi moom saag bi xat boobu yàlla moom day rek lay ragal man yaa ngi kon xam mm, mooy loolu daal léegi daal fi mu bi kenn comprendre ko métti kii na daal öyle olur da. nuyu naa leen yéen waa kër joor ak Dior ziar leen bu baax a baax di wax ne bàyyi na ngi am jàmm ak tawféex ah, namu naa leen lu bëri bëri bëri waaw tey di wax leen nag ah, affaire bi mooy noonu rek seetaan nañ ko nag moom depuis que ngoon waaye dañu amutoon temps rek loolu moo taxoon commentaire luñ ci benn yoon ah, daal li ma ci jaaxal mooy Dior. dana feeñ ndax xale bi mu sàcc moom ci jaaxal lii Fatou waxoon ne photo bi moom lañu koy xàmmee photo boobu lañu ñu koy xàmmee damay ragal nag ñoom ñoom ñii moom doom ji ñu njëkk a gis yaama ñu njëkk a gis joor andil ko problème dóor ko wala ñu yóbbu ko gendarmerie sax xam naa mën na nekk buñ ko njëkkee gis peut-être waaye doom bi moom moo koy feeñal ndax ñoom suñu waree joor mu tëw feeñ rek dinañ def annoncé dinañ ko wër Eh, te damay ragal nag doom bi mooy feeñal joor loolu laay ragal nag